ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne ñoo ngi fii euh, bi wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag bàyyi def li ko neex déedéet amul benn problème ki mooy 5 tonnes wala déet. Ah waaw gis nga di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax di leen wax ne ñoo ngi ci mag bi xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi day dem ci ñi nga xamante ni nii ay mbër la ñu xel yi day dem ci ñi nga xamante ni ay supporter lañ waaye tey nag defe naa ne dañuy def lu ñu neex ndax xam naa ne boo invité mbër mu jël ay tànkam teg ci ko table bi defe naa ne mooy lu ma neex laay def cinq tonnes laa dalal tey euh, moom ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Niang ñoo fi waroon toog mais Cheikh Niang am na ay am na am na bon jàpp nañ ko ba xam naa dafa am gàllankoor wala am ndog-ndog moo tax ñëwul waaye xam naa ne moo tax ñu bëgg ñu commencé ak moom ma bàyyi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi 5 tonnes nuyu naa la. oui di wax ginnaaw benn sant yàlla julli si yonente bi di sant seen ñaari waajur di wax mention spéciale pour dof yi ñuy béggee yëpp di wax 5 tonnes benn ndaw la bu judd 1997 sixième mois troisième jour hôpital di présenté woo loolu quoi di béggee dof yëpp daal di béggee waa àdduna di béggee waa géej waaye gi may yeewoo gis ngeen mbokk yi 5 tonnes leen dalal waaye su ma su ma koy su ma leen koy fàttali dama leen naan ki demoon ba Sandaga ca rond ba simmee fi nga xamante ni mooy rond point Sandaga defe naa nag loolu ñu bari gis nañ ko ñu ci bari tamit loolu xawoon na leen a jaaxal waaye tunganelu teew moom ñu natt ci ëkk ndax xam naa ne loolu dinañ ci waxtaan dinañu waxtaan li nga xamante ni mooy mooy ci carrière ñu ci bari nag ab comédien lañ ko jàppee wala ñu ci bari yaakaar nañ ni euh, tojul ci làmb mais ndaanaan la ndax def na ay preuve ci làmb ba nit ñi xam ko xëy na peut-être loolu la ñu doog gis ci moom ndax sangu na fi nga xamante mooy rond point waaye nee na dafa woon bëre daan dem pale waaye demagul pale yooyu yëpp dinañ ci waxtaan lan moo waral tu tuur 5 tonnes bi ak cinq tonnes ni mu diisee nga tuddee sa bopp 5 tonnes lu waral tuur boobu. waaw mooy li ma la wax nii rek xam nga ñun moom ay ndaw la ñoo xam ne dañoo judd rek indaale forme dof quoi ñun bi ñu juddoo dañoo planqué wu nii def indaale forme dof. bi nga juddoo da ngaa lemu. waaw dañoo planqué wu def nii indaale forme dof quoi mhm. léegi madame bi nga xam ne moo ñu traité mooy madame Aïssa xamal nañu loolu ne dañoo planqué wu moo ñu traité bañ bañ normal daal affaire yooyu noonu léegi après si lañ juddu ñu nekkee foofu noonu koñ ba xama ndax su ma juumul làmb Boy Niang ak Dolfo. Mm-hmm. boo fekk na ñu ngi ñu ngi jàng waaw bu fekk na ñu ngi jàng quoi. fekk gu la nga dugg ci làmb. barke leer man jour combat Sa Thiès ak Boy Ngaay maa ngi fàttaliku ma ànd ak ñoom mbay Guy gi ak Nokia. man sax est-ce que du samay daal <laughs> waaw waaw waaw. Ah? yaa ngi dégg jour combat Mbaye Guy gi ak Nokia. Uh-huh. lañ dem stade su ma juumul. non non kii saa kees ak ne ak nekk réel la bi ñu dikkee mooy Iba Mar am na benn porte bu féete ci foo bi ne ñu ne booy tëb leen quoi ma jour laa njëkk a am plaisir lamb quoi léegi ñu ne tëb ak nekk réel la waaw léegi bi ñu waxee tëb leen léegi ñu ne yaa gën a nekk booy tëbal quoi xam nga Poro xam boo tëbee da yem ci douze bi. waaw fekk ki tëgg laam ji dafa teg fa <laughs> yaa naa féq amee njàpp mais tellement loolu moo gën a yomb quoi après c'est la génn. da tëb yem ji moom ak tiit ne da xaaral ma kaa ba julli. dama tëb dañ ne yaa gën a nekk booy tëbal quoi mais policier bi dama gisuma xam booy boo toog si bit doo gis policier mais dama tëb rek gis policier bi mais dama tëb rek kabaar dama ne allahu akbar sabi allahu liman hamida policier bi dama geesu dama reetaan mais booy yaa naa fiyeq fa ayo njàpp tellement après <laughs> loolu moo gën a seet daal na bu la jàpp dugal ci biir daal toroxal la eh, eh, waaw affaire bi ñibbi nag si la ah, tàmbale am doode sans plaisir plaisir bu dugguma quoi affaire yooyu noonu waaw doode ah, mhm. loolu moo indi Euh, bi nga bi nga bi bi la làmb duggee wala boog plaisiru làmb bi mu la duggee hmm. nga xalaata ba est-ce que bëri mbapat. booy bëri na am mbapat kay bëri naa teere bay pap bëri naa am duul moteur tëgg na sama làmb te boobu mu ngi bëri arène duul moteur. duul moteur men wallaahi bi may daan ba 52 seen boo ne booy mbapat moom moo ko tëgg. yow yaa yee tudd 5 tonnes ndax loolu li ngay wax nii loolu yàggul. yàggul man làmb amaguma ci 2 ans xay na mooy li ma la wax virus bi ak doode sang bi ak ndimbal suñu borom quoi moo la ci dikkal quoi vraiment toj nga mbapat bu baax. waa mbapat de ah, bëri naa si daal man moom wax dëgg yàlla yàlla daal dimbali na ma daal nii ko fi di toj mbapat waaye naan am na boo xam noggatu naa leen ci dëkk bi lañ dëkk ku ci mel ni am nañu ñaar ñaari boo xam rëbës lañ nekk kenn ki doon na ciital fanee sax maa ngi koy nuyu au passage yaa ngi de du taxalee baal non non booy la booy suñu morom la duul motoor lay àndal waaw ñoom ñaar bokkoon néeg sax xam naa mais après bi duul motoor rek a jabar xam naa daf koo génne quoi mais <laughs> loolu sant yàlla la bëri naa làmbaay tamit Euh, mais kañ nga kañ kañ la sa xel dem ci nga dugg ci ba dóor. waa si bëre dóor maa ngi Fallou moo njëkk tëgg sama làmb bëre door mu ngi nekk jour komba Ada Fass ak kan comment adresse waay. jour Ada Fass ak caatu ngéwal bi ñu bëree jour boobu na am a combat barke lay alxuraan mooy si bi saa yore bitel di fóon muy xeeñ kii waa ji <laughs> te mu teg ko ne mooy ko tuuti ku yambar ki dëkk bi kàdd gi <laughs> boobu noonu la kàdd gi nga ne ñu ko suñu papa la comme da comme da yëfu yambar loolu laa ci wax rek mais yaakaar naa si laa njëkk bëre daal jour boobu noonu la Fallou Ndiaye mu njëkk teg sama combat. ñaata combat nga def 5 wala 6 5 combat laa def 5 waaw. mën naa ne 3 euh, victoire benn kii ndax bi jàll nii moo xam ne loolu du du du def. loolu du loolu moom dinañ ci ñëw. waaw combat boobu moom faaw ñu ñëw ci parce que yow. mënoo dem Sandaga sotte ko fa. maa daan Sandaga na leer. maa daan Sandaga. waaw ikiri jàmm gën la nekk. waaw maa daan Bolakaas. rako fóorus la. blocage waaw. maa daan grido bu gunaas. nga bëgg kan mu daan na fàtte naa ko sax. bu koo tudd seen tur moo tax nga fàtte. non nga mujjee ba. benn waay. man maa fekkoon jàngoro yëpp ma jël siti yàlla dogal na làmb ñu noonu la demee jeex na quoi. mais mais mais mais li jaaxal nit ñi mooy mm, danga def vidéo boo xamante ni ñëpp dañ ko apprécier ñuy kontaan ci ñi ne la moo tax nga def loolu. parce que yombul nga ngay sangoo gàllaaj bëccëgu kam naaj bu tàng jë diggu sànd ak nga taxaw fa sottee ko fa say gàllaaj coow lu topp la bës bi foo tund ñu naan 5 tonnes 5 tonnes sa combat bi ñëpp moom lañ doon xaar ci stade bi mais nga ñëw puusoo paasoo bëreewoo xeexoo ba pare daanu li ma gën a métti mooy ngay saltel ji lu waaw au passage ma dugg ci question bu nga ma posé affaire bi nekkul loo xam ne affaire soppis la nekkul loo xam ne créé bës la. yaa ngi dégg dafa am benn maara boo may ñaanal ci làmb la nekk daf ma yàgg a ñaanal mhm. mais xam naa comme dof gi may wuyoo daf may gisum fu ma dem yëfu def yëfu dof comme ay soirée caat seeg na nga xam ne istilu def comme rama mhm. am ay sangat yoo xamante ni pour ñu baal ma si kàddu yi daal mhm. affaire fekk ku ñu wax Baye Cheikh mu ne ma dafa am ñaari a yomb mais boo ko defee ma bëggoon mu loolu soo ko defee di ko am ma ne ko ban mu ne ma benn bi danga may wutal pour nga jégalu si kàdda gi daal. non waxal waaw fukki cokki jigéen ak ñaar. tuuti fukki cokk jigéen ak ñaar la ma wax pour ma wut ko su ma ko wutee. yaa ngi dégg mu defal ma sangat gi bi ma ko waxee mu ne man nga ma ne ko waaw mu ne ma noo koy wute léegi ci la ma bàyyi Cheikh ki sama xarit bi wutal ñaar moom kooku moom loolu la ma irsan léegi affaire yooyu noonu léegi si laa dem mu woo Omar Kassé mu ne waalal ma 5 tonnes ne ko guddi na fa ñëw après ma jógee entraînement ma dem fa. non des fois ndànk da tëb foofu moom ñaar la loo mën ñaar la loo mën a wutal léegi fukk yi foo ko jëlee no moom laa la aw ma ko woon mais da ama ba ma bi ma fa jógee hmm. automatiquement def naa samay recherche quoi ndax Baye Cheikh moom nee mën na maa wutal ñaar waaw Góora Njaay sama beneen xarit mooy kii dawal oto bi nee na mën na maa wutal benn yaa ngi dégg Jóob ne moo yor sama social nee na mën na maa wutal ku ñu wax laat ne mën na maa wutal ah limul ak ñaar la ma wax moom la moom la laa ko indil fukki cokk ak ñaar yu bokkul waxuma la kenn nit de ah da ngay coppati fii benn waaw kay <laughs> yu bokkul <laughs> ah oh, jégalu si wax ji daal affaire yooyu noonu comprendre nga léegi après si la ma wax loolu noonu Barcelone ma léegi kon boo marqué ne 5 tonnes guddeem mu ñëw mu ne ma léegi noo xam ne ngi def am naa ay butéel yoo xam nga koy sangoo quoi mais ci ay rond nga koy sangoo mais léegi yow bi nga ñibbee da xam ne loolu mënul nekk nga bàyyiwaat loolu. non non bi ma waxee loolu def naa ay démarches pour di di cooki non loolu moom dama ko indi. Ah, yow da nga nekkoon ci loolu pour waat ma nag mu ma kaay mu waat ma si guddi gi la la la yónnee ne ma ne Omar Kassé ne ko seen si laa fa dem mu ne ma léegi yow léegi xam naa loolu day di si yow affaire yooyu noonu léegi wutal mën ngaa am na ay sangar yu fi nekk dañu may sangar ay la ak camp policier ak buntu palais. rond ak buntu palais mën na ko vie barke leer alxuraan mais kooku est ce que nekkul doon xool sa dëgg fit fu mu toll. léegi bi ma jógee saal ma jógee saal comme ay ay midi su ma juumul ah ay midi nii affaire yooyu noonu mu jékki-jékki mu woo ma ne ma kaa benn bideel bi pare na mu ne ko ah mu ne am ah, bu baax mu jox 1000 francs ni ma demal jënd leget quoi lay si laa woo sam benn gaan ku ñëw Ablaye Sall yoruñu sax téléphone barke leeru alxuraan te fekkoon affaire xam ne ci bi ma dikkee gaaña dof dof mais boobu Sane constaté pas li ma intéressé mooy li may def moom intéressé comprendre ma la mhm. si laa dikk li ma bëgg xam mooy moment bi ngay dem ci rond bi di sangu parce que bi ñu lay gis defe naa dañ gis nga sol caleçon fan nga simee koo waaw moom laa la wax waaw xam nga man damaa jóge entraînement boobu ma équipement laa sol Mhm. mu jox ma affaire dama continué noonu dem moo tax dama bi ma dikkee ba ci. mais moo tax choix bi nga def ko romp nga dem ba rond-point Sandaga. waaw moom dam dam non boo xam ne bari nit te man xool Sandaga moom obligatoire bëccëg gi moom foo jaar waaw ay Kër Masara yooyu doxul mais fee moo gën a kii quoi moo tax ma dem fa yee nga dem fa sangoo fa coow lu topp la ñu naan cinq tonnes cinq tonnes cinq tonnes cinq ton coow lu bari waaw coow lu bari ba bisan xam lu ne am naa ko ci mooy loolu daal coow li bari ci sax vraiment sur kii yi daal. combat taxaw. Ah. combat bi taxaw nga ñëw ñëpp di xaar 5 tonnes lan lay andi. mais nga ñëw puusoo paasoo. waaw xam nga xam nga yenn saa yi day am yoo xam ne jóg liggéey la quoi wala ay cat affaire yooyu noonu comprendre nga ndax Maxime Bergane keroog bi ñu ma convoqué CNG wax na ma ko. ndax man sama combat bi avant muy avant mu yegg si dañ maa convoqué Matar Ndiaye dafa maa woo sama ménagère. Mhm. mu ne ma dañ laa convoqué CNG ma ne ko mënumaa ñëw. comprendre ca affaire sangu ba ca waaw waaw. ma ne ko mënumaa ñëw léegi bi yàlla dogalee combat bi jàll ma dem fa ñu waat ma ne ma dañ laa convoqué seen ma dem bi ma dikkee ma daal paa xaw ma dañ maa bës ba dañ maa bëgg a gis xaw ma qu'est-ce qu'il a daal ma yaakaar loolu bay sànn nga génn def affecture dafa woote woon da laa waroon jël si moo loolu déggoon naa ko déggoon naa procureur da laa wóolu woon non loolu ay dóor la rek procureur daa am jot googu sangu sànd non xam nga a

barke leeru alxuraan maa ngi nuyu nag jabaram ku baax la quoi au passage maa ngi koy nuyu jabaram xaw ma mais sama xarit bi dafa mais léegi dama bëgg nga ñëw ci ni nga bëree dama bëgg nga ñëw ci ni nga bëree combat bi dañ la jàpp mystiquement. waaw làmb ji ni ma bëree mooy xam nga làmb ji sax keroog ñàkk staff bu baax moo tax ma demee noonu yaa ngi dégg ndax moom moom ni ma gis xam nga làmb ji heure bi dafa soufflé ñu jàpp taxaw xeex affaire bi dëgër xam nga ñu daw jàppante may yooru affaire yooyu noonu mu may dóor man sama loxo ba tey zéro réaction boo dee xool sax man dóoruma fa yaakaar naa benn dóor làmb ji li muy nekk quatre-vingt-dix minutes yëpp benn dóor laa mhm. affaire yooyu noonu léegi demee après làmb ji dëgër Maxime Bergan bi bi ñu xaajalikoo ñëwaat Maxime Bergan ko dawal nga nga jàppante ak moom quoi mais jàpp na lu yàgg ma xam naa ci léegi nag man si ma kii ma jàpp si si kii bi si ngembuli léegi dama moom dama ko doon xabal mhm. dafa roj tànkam nag daw daw cargaloon nag man quoi Mhm. xam naa arbitre bi dañoo jéppi rek wala mu jéppi ma jekk-jekk ab Massenbergane taxawee def nii rek mu joxe victoire boobu dañoo bëggoon dañoo doyaloon ci combat bi ah loolu laa jàpp ah. mais nga jógee ci am ci defet ma gis ci ñoo ñu bari ñoo xamante ni bëgg nañ sa combat yow ak ñoom mu nekk nag ay combat yoo xamante nii mën nga cay jaayee génn mu nekk combat yu neex sa diggante ak Cheikh Niang keroog dañoo tax sa stade mais waxtaan ak moom nga ne ma su bëriwul ak moom bàyyi làmb moom tamit mu bëgg a bëgg ak yow loolu ngeen sa wéccan dafa ay ay kàddu yoo xamante ni sa diggante ak Cheikh Niang lan la. waaw li ma xam nga loolu man maa op maa def sama option kenn ku ne am nga sa soo am sa option dama ne Cheikh Niang bu Thiès wala Tafa Gueye numéro 2. wala Lassander su ma leen amul damay bàyyi làmb man loolu laa wax. comprends fa la far yàlla dogal ker bi ma ñëw isaat ma teg si kaw kii bi maa ñoom Iba suñu waa entraîneur yi su ma see sa Iba ne ma Cheikh Niang moo nekk nekk suuf wàccal nga wax ak moom. Mhm. si laa digg man Cheikh Niang xaw ma ko ndax man xamal tax man Cheikh Niang xaw ma ko Cheikh Niang xàmmee ma ko te Cheikh Niang li ma jaax Cheikh Niang man ba mu bëri wuli sax reefal la ma fekk. bi muy bëri wuli wuli barke leeral xuraan billaahi non Cheikh Niang kay man mosuma seet victoire xam naa lan laay dégg Cheikh Niang Cheikh Niang dóor na Cheikh Niang dóor na daan na Cheikh Niang man Cheikh Niang combat bi ma dégg yëpp noonu la demee Cheikh ña ngi dóor Cheikh ña ngi dóor daan na Cheikh ña ngi. mais lan moo tax nga bëgg a bëgg Cheikh ña. waaw mooy bëri naa ñoom Balla Gaye bëri naa ñoom Modou Lo moo tax mu bëgg see jaar xama tey ndax tey exemple am na ay ndaw yoo xamante ni comme exemple comme ki fi jóge sànq nii da lay wëral ñooñu mën a ñoom ay lamb lañ mais xama tey man maa ma ma ma ma maa bëgg a am option daal bokk si ñi coow daal xama am na ñoo xam ne boo leen daan dafa am leen apporter mais am na boo yoo xam ne sooy bëree ñoom dafa leen jaral quoi ndax comme 5 tonnes am na tour affaire yooyu noonu comprendre nga dafa leen jaral ndax bu doon kon boobalee kon mën naa bëri ndax ay adversaire bëri proposé nañ ma leen mais xama maay choisir daal. mais damaa gis yi nga tànn yi benn nooyu ci Lassander. non Lassander moom maa ko mën moom ñi ma la limal kay yàlla xamee maa leen mën. yaa leen mën barki leer alxuraan te seex ñag moom seex ñag moom seex ñag moom la waatal billaahi wallaahi ak ñaari kilo mbir yu may ndékki yàlla na moom dama ko dóor mu daan pare seex ñag doomam toll na ni kii doomam bu jigéen toll na ni kii <laughs> yow dinaa reen a compris quoi aw tey moo jug nga xool ko <laughs> waaye tu me regardes bien nga xamante ne da nga jóg xool. tu le regardes bien <laughs> waaw tu le regardes bien aujourd'hui kii maa ngi gis boobu léegi. mais daal ma la mën a wax mooy. Sénégal bu ñu doon bëree moom man ak moom xam naa ne moom. mais nag mhm. ah, bu man moom Thiès Thiès moom xam bu fekkoon nekk ma xam nga xam nga tey dafa yoo xam ne foo leen yóbbu ñu dem. Mhm. mais man wax am na tur xeex naa sama indépendance bu bokk daal mhm. comprendre nga kees moom wax dëgg yàlla nañ ma ko jéggal rek kees moom mooy loolu quoi. mais ndax kees seet maa ngi nuyu au passage sama benn papa mas na maa woo quoi. Mhm. Sidi Diakhaté naan ma waaw kooku la Boy Ton ma ne ko waaw mu ne ma sa waaw mu ne ma sa combat laa bëgg Thiès yaakaar boo jaxaa bii doon bëri ni sama juumul. Mhm. ma ne ko père Thiès doy na ma mu ne ma oh, dañuy liggéeyaat xam nga affaire yooyu quoi sot bi fa nekk yooyu te man dama ma te xam rek arrangé wu ma daal. waaw ko non mënu mënuñ ma liggéey vraiment mënuñ ma liggéey quoi mais su ma sañoon daal làmb ji maa ngi Cheikh bu ñu ko doon tëgg mais li sama problème est ce que promoteur dinañ ko bëgg am na promoteur bi ko fay 75 mi sama tey man su ma nu bëree ak moom maa jël sama kase yoo xool ñu a pour jël dagg sa kase yokkal Cheikh Niang barke Serigne Saliou Mbacké laa la waatal billaahi wallaahi ma fay ma bëree ak moom mais Tapha Gueye numéro 2 kenn ku ne xam ne ndaanaanu làmb la. Tapha Gueye numéro 2 moom fu ma ko fekk ci mbedd Dakar dama koy dóor. te ngaa ba ñu dugg ci loolu. billaay wallaay wa taalaay xool gis na Tapha Gueye numéro 2 ak Lassane de Cheikh Niang dama leen interdit ruutu géej waaye laa leen interdit. duñ fa taxawaal. barke sëñ Bamba Mbacke. mais nag yow wóolu nga sa bopp non loolu xam nga kenn kon am nga sa ambition ak sa choix xam nga ne dañ a boo xam ne moom presque taxawoon na mais dafa jóge si defet moo tax man na tey yow xam nga moo am na na continuer yàlla na ko yàlla defal jàmm ah, dama xam ne boo fi limee fii day jóge ci combat boobu ne kaa ñu bëre de non man moom am fit gi mu am fit kooku ki muy bëral ñoom ñaar moo ki muy bëral yëpp maa leen gën a seer apporté luñ dara promoteur moo tax ma wax loolu du ma du ma tudd turam di ko may bës quoi mais ñi ma la li ma tuddal ni daal maa la tuddal ñooñu moom. léegi li ma bëggoon xam mooy euh, kañ ngay dem palais sangoo fa sa butéel bi. mais da war a wax Cheikh Niang laa wax mu respecté nit ñi comprendre fi ma la ndaw lañ comprendre na. Mhm. tey moom fi mu toll si làmb dafa war a nekk bon exemple. yaa ngi dégg ndax Cheikh Niang moom ay défaite rek la tegle Cheikh Niang combat bi mujj yëpp Cheikh Niang dóor na daan nag Cheikh Niang liñ ko dañ koo daana daan ba mu nooy Cheikh Niang pour ma wax la ko barke Serigne Bamba semaine bi ñu génn daan na si am na ko xam benn booy bu ndaw daa yenu ba ci kaw dóor ki suuf nga ne keroog bi ñu dem bëri lan la yóbbu <laughs> seen ak yu bëri <laughs> Jakarta laa jël Jakarta moo Jakarta yi nekk Jurbel la jël fay benn waaye euh, allez deux allez dur deux mille waa ji indi ko <laughs> si wàcc seetaan làmb ji ñu yenn seex nag bañ ko dur ki mu jëlaat ko yëpp Jakarta bi bu këram <laughs> dark Serigne Bamba Mbacké xam nga moo tax ma ñu ko saaree duñ apporter dara at benn përëmët wax. mais yow daal li nga bëgg daal mooy boole woon ko ci palmarès. waaw waaw kay comme bëri nag xama man xam bu dee fee kuy ay comme ay Jurbel ak ay Thiès yooyu compté wul bu dee fii day neex quoi. xam nga nga ñu exemple ma ma sama koñ xam nga xam nga may la noo ki may bëreel bëri naa Balla Gaye bëri naa Modou comme di nag magu loolu ça ne ah, ne concerne man man man aw man aw ma man dëgg la na maa ngi nuy grand frère yi nekk géej waaye yëpp samay grand dañ may mais xaritu mbër aw ma mbër aw nijaay ne mbër sama vie la sama option la boo xam ne maa ko bëggal sama bopp comprendre bi mu si dugg xam nga sama yaay bañ sama papa bañ ma góorgóorlu ba instant yi nii mooy loolu xam nga te làmb aw ma ci 200 taf instant yi toll dara bokk naa ci espoir yi nga xam ne comme suñ côté bii quoi milo sopis bi ñu siy tudd quoi yeah mais loolu tamit sant yàlla laa léegi naka nga na waajalee sa combat yi nga xamante ni mooy ñëw ci sa kanam waaw moom laa la wax ñi yow moom doo semé moom non du ma semé moom mais ñi moom bu ma la amul moom damay bàyyi ba dem tukki ñett ñi nga limal su ma leen amul Cheikh Niang Lassander Tapha Gueye numéro 2 te nag lu leer laa la wax même seen mbokk bu amee ngénte géej waaye sax jur ñu fay jaar barke leeru alxuraan bu dafa amee ngénte wala dëj moo moo géej waaye de waaw mais xeex mais mu ma ko mais sama carte kii la quoi saa yi mu ngi signalé temps bi kon nañ nuyoo dem. déedéet signalé wul de. Ah, comprendre yaa ngi dégg. Ah. dama ne la géejawaay muuma ko mais yaa ngi dégg maa fay dag am na ñoo étranger yi étranger yi comme ñi ñi ñi ñi. étranger waaw étranger ñi wàllu yaan ah. si. maa leen jox ay cas ay laisser passer quoi. kon de yow daal waaw. di nuyu na grand liiru jaan bu baax a baax. wallaay di ndax wax dëgg yàlla ker rek moom ma koy wax mu ne ma sa diggante seeñ ak bu taxawee dinaa la jëndal bolok Père Assane Ndiaye nee na ma dinaa la jëndal trois bolok affaire yooyu noonu quoi man xamuluma neex. man seeña dama ko bëgg dóor mu daan mu bokk sama kere loolu rek moom mais amul lenn lu may apporter daal comprendre du mais damay dégg ay booy yu bari am na booy bu ñu dikkee maa ngi seen interview mu naan ay 5 tonnes ay tapet la affaire yooyu noonu du ma man maa am sama option ma am sama choisir comprendre nga barke leeru alxuraan laa la waata sama diggante seeña bu taxaw may la 50 000. yàlla mooy loolu. Cheikh ngay dégg ndax xam naa ne moom tamit. lu mën a am mooy bëgg na bëre ak yow xanaa nag dañuy wax promoteur rek ne leen làmb la te làmb làmb du ko dàq ndax defe naa ne bu ngeen wut combat boo xam te ne dañ dañ koy jaay man mi bu ma fi jógee tey dinaa woo promoteur yi ma xam ndax gis naa am naa am naa promoteur bu bees boo xamante ne nii

bëgg tey boo waxee ñu ne 5 tonnes ñu ne waaw non sa waay kan xam nga dafa neex quoi nga am journée yoo xam ne da nga koy mën a publicité quoi comprendre voilà nga jaay sa bis daal. boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo ba beneen. Cheikh Niang moom faa mu woloog andi la ko fii ngeen toog ma koy njatt sax dinaa ko njatt <laughs> wala wa taalaay soo ko defee sama combat moom maa la ko wax bu taxawee boo ko yëg bu yëgul foo ko waxee nee ma 5 tonnes ci internet laay waxee nee ma allo dof xam naa nga ne ma nga ne ma sa waay allo dof damay kii de allo alo allo waaw. ñun de ñooy mujj yaa ngi dégg allo waaw. da da non interview yaa ngi dégg comme exemple ma ne la sama diggante mu taxee foo ko foo dégg woo ma téléphone nee ma allo 5 tonnes ba nga ne ma nga ne dof la nga waxoon def ko leer na. leer na waaw mais nag xam nga di sant àdduna di sant ñi nga xam ne ñoo jàpp ci rappaay di sant Bamba borom siis fataaye quoi vraiment ndax boobu léegi tegul tàngam xama siis fataaye la alxuraan yenn saa damay lekk cere 600 meew 400 naan pot ndox tëdd sama ngor barke Mohamed wala ma lekk siis fataaye naan pot ndox tëdd sama ngor quoi mais maa ngi sant Bamba borom fataaye xama di ko sant bu baax a baax a baax di sant mère Ñama borom cere ji xama dina yéex àdduna lépp c'est la vie waa xam nga àdduna moom lépp da ngay am gëm-gëm tey sawaa waa koñ jàppale la xam nga xam ne tey daa am loo bëgg mais xam nga tey am na mbër yoo xamante ni tey exemple ko quoi tey amuñu jàppale dañuy bëre sonn man damay man gis naa sama koñ benn mbër boo xamante ni daal wax billaa wala a suba la daa yor lii nii daa yor ay ticket di ko wër di ko jaay yaa ngi dégg mais na am na benn maara boo xam ne géejawaay la dëkk maara boobu day jaay mburu géejawaay yi ndax man sama combat bi ma daanoo moom ma ma dañ maa booleeg moom Alizé ma booleeg moom Alizé maara mm-hmm. bi ma ñëw mu jëlloo ma saraxu ñetti basang mooy basang yi ñu dem ñett dem yii ma jënd ko maara bi ne ma waagee combat bi daa <laughs> mu laal genn ma dugal xalo mais yooyu nañ ko bàyyi maara yooyu nag Macky daa war a wax si ñoom nga ah c'est normal maara saraxu ñetti basang la ma jëndloo ne ma dama koy saraxe ma ma dem daanu gaan mu ne ma lamb ji ma cinq minutes ma ñëw ñu daan ma dem fekk mu laal genn ak basang loolu c'est raison déedéet il te n'est pas raison ma ne ko jógal mu ne beneen dama dugal xalam ma ne ko loolu genre concert dafa jox Moussa waaw mu ne beneen dama dugal xalam <laughs> ma ne ko ah voilà dugal xalam xam nga yooyu tamit Macky Sall war na wax si ñoom quoi vraiment ñu génne leen dëkk bi daal ñu xool nuñ def waaw di sant xam te xam àdduna da ngay ñaanal dafa am koo xamante ni tey man benn gel laa amoon quoi mm-hmm. te yàlla dafa dogal dafa dee yaa ngi dégg maa ngi koy ñaan armée armée Pikine lañ ko suul yàlla na ko yàlla yërëm xama ak ñëpp bu ma fekk ba àggee foofu ma am fa beneen far bu di ñaanal ñëpp nag xama di sant waa Géejawaay di sant àdduna di sant képp koo xam ne yaa ngi bégee 5 tonnes dof bi maa lay bégee la jox sa wàccuwaay xama di bégee waa àdduna di bégee grand Lirou Diane di ko wax sa waaye sa anniversaire. mais gannaaw gannaaw gannaaw moom faatu na xanaa di nga wut keneen. waaw xam moom def na ci man loo xamante ni xam nga pour mu am beneen gel ndax dama ko exhumé quoi ba léegi damay tëdd di ko kii sax xam nga ndax man ak moom def nañ lu ne quoi mais nag dee na xam nga moom fir doom moo ko daloon xam nga yàlla na ko yàlla yërëm xam nga bu àggee foofu mu am fa beneen far bu baax bu ko bu ko bu a yor daal ba ker may ñëw xam nga di ko wax tamit ñu moom ñoo fekk ñëpp yàlla na leen yàlla jéggal comprendre nga. Mm. waaw mais nag man bu fekkee affaire stress beeg yooyu na dinaa ko kii. waaw waaw no armée Pikine fii lañ ko suul quoi xam metti na ma trop na vraiment ndax bi muy dee deegu ma bett la dee waaw vraiment ndax di yàlla ndax bëggoon naa ko bëggoon naa ko takk ñoom ay doom mu jékki jekk dee mais àdduna noonu la mais daal li ma la mën a wax mooy maay sant ñëpp di wax grand liiru jaan anniversaire bi jàll di ko wax ne ko soaay sa anniversaire happy birthday to wala jàll na sa jëru souhaité mais ñu wax mu dund ko waa comprendre nga yaa dégg di sant ñëpp di wax grand grand Balla Gaye di wax ne ko xama làmb noonu la ko ndax Balla Gaye Bombardier Balla Gaye xam nga xam nga xam nga mook Bombardier sauvé làmb moo ko si dugaloon mais bala Gaye boo xoolee xam ne parewul quoi comprendre nga waaw di koo wax ne nga xam àdduna dañ koo bëgg kon tey suy ñëw dafa war a ñëw si état boo xamante ni état fort lay doon quoi. waajalaat boppam boobu waaw waajalaat boppam xam nga. indi ah, waxal dina la dégg ndax voyagé na. waaw su kooku sama papa la kooku suma papa ndax tey man man man man mooy li ma la sànq ne man ma xaritu mbër man mbëri mbëri mbëri géej waaye. ngay wax la dëgër. la dëgër sa doom day non la dëgër suma xarit de bloqué naa ko kooku këram laa dem benn jour barki yàlla bi 7 laa fa dem ba 19 heures añ naanu moom ndox am ndox sax naanu ma ko fa. jox la nga lekk jox la nga naan barke leeru alxuraan. mais nag y' a pas de souci nu xëy na loolu moo nekk si xolam mais xam nga Balla Gaye ñu ngi koy ñaanal xam nga mu amaat ku bu ñëwee daal mu ñëwaat bon bonne santé bon bon bon bon bon décourage daal comprendre ko de ndax Boy Niang lay dajal. non est-ce que lay dajal xam nga du ci wax lu xam mais xam naa Gris la ko gars yi di jox. waaw bu dul Boy Niang di Gris Bordeaux te Gris Bordeaux moom fi mu toll nii gi mer. <laughs> Gris nga ne saa yi moom Gris ko man quoi. giri moom bu isaan xam yooyu Balla moo mën giri moo mën Boy Niang barke leeru alxuraan Balla moo mën Bombardier sax. te Bombardier daan ko ñaari yoon. waaw li ma la wax accident de travail am. non bu njëkk ba. accident de travail day am yow yaa nga jékki-jékki de yow. non bokkul man liggéeyu fi damaa ñëw pour nga interview ma liggéeyu fi moo tax ma ne accident de travail am xam nga accident de mooy comme exemple comme tey ma ñëw nga woo ne ma 5 xam maa gisu nga yëg escalier yi jékki-jékki def faux xam nga yooyu day am man moom du am waaw di sant ñëpp di sant sëñ Maxtaar Mbay Sindidi ndax waxoon na ma lamb ji nii lay demee comprendre nga mm. Massi nag maa koy jégalu ndax dafa am benn affaire bu ma waxoon ndeysaan tase na ma ak moom mu wax si ndax nee na ay doom wax na ndax dama ne te loolu sax dafa amoon dama bi ma bëree dama ne man yàlla na isaat bi màbb ñi fi nekk ñëpp dee quoi. biñ la biñ ma daanee noonu loolu laa wax quoi dama ne yàlla na isaat bi màbb ñi fi nekk ñëpp dee kenn bañ am loo nettali caméra man ak journaliste yëpp deewandoo xam nga billaa walaay xam nga boo xam ne daal mu ngi noonu daal mais daal di sant ñëpp di sant. ko defet bi nga waaw loolu laa ñaan dama ne yàlla na yàlla isaat bi ñu fi nekk ñëpp dee isaat bi mabbu ñu fi nekk ñëpp dee barke Mouhamed billaahi wallaahi laa sa xarit Serigne Touba xam ne bi ma ko ñaan sama xol laa ko tibbee barke leeru alxuraan billaahi wallaahi ak ma suul sama ndey dama yàlla na isaat bi mabbu ñu fi nekk ñëpp dee kenn bañ am loo nettali barke Seydina Mouhamed camara maa nekk ñëpp bilaahi mais nag waa bi <laughs> waaw maa bëggee ñëpp dee kay àdduna tukki dama bëggul àdduna tukki daal mu mu jeex kenn ko dem seet leneen daal affaire yooyu. mais yow mi yi yàlla surtout nag xool dara doxul gaan bi ma ñëwee soo bu ma xëyee ma taxaw ci sama bu dëgër ci taxaw nii ma jant bi man dañ ko dugal sama biir jéeyi gaan muy dugg si biir ma ne waaw ma ne du ma nañ ma nag mais nag noonu la quoi affaire yi xam nga sant yàlla rek bilaahi sant yàlla la bu baax a baax xam di sant koo xam mi tamit kenn la si ñun quoi hmm. mooy sama papa sama xarit daf may jàppale te moom xama moom moo may dooleel quoi moo tax ma nekk xam ma jàmbaar joogi dafa am ko nekk si ginnaaw di ko dooleel mooy Birama Diouf Séeri Madame Diouf papay bébé Yacine xama di sant waa Yoof di sant Rugi rugi ko baax a baax xama di ko wax yàlla na am 14 doomi góor waaw di ko wax yàlla na am 14 doomi góor tëri su jigéen ci barke Serigne Saliou xama di sant Serigne Khadim Mbacke référence yaa ngi dégg di sant waa Géejawaay di wax élection yi jërul ay ay comme def nii di yàq xeex ak ay yàqante kër ndax demaa ngi si en journal Bamba Fall beneen camp bi dem këram yàq këram xam nga loolu tamit te te raison quoi. Ah, ndax tey exemple. kaay ma defar koñ bi est-ce na ay xeex comme defar koñ rek est-ce na ay xeex yenn xeex yi comprendre nga bu fekkee da bëgg a jàppale jeunesse kay war ngaa mën a am neneen noo waxtaane moom ëmb leen xam nga mu Medina a a mhm. koy génnee di leen ko ñaax mhm. waaw xam loolu daal bëgg naa bonne volonté ak ñi nga xam ñoo nekk ci géew politique bi ñu bàyyi ko xel daal xam nga moom xam benn jour la boo xam ne mooy la 23 bi xam nga kenn ko da ngay toog sa kër te nekk sa jeeg. muy kii waaye man may citoyen nga ne naa ah, carte d'identité <laughs> di wax tamit xam nga ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi tamit nañ jàppale population yi xam nga comme ñun fee ñu dëkk ne tamit Racine Talla mooy suñu maire quoi xam nga tamit war nañu mën a gën a sentir suñu bopp si moom ndax ñun ay porte de voix lañ te ay drapeau lañ comprendre da nga gis ay maire yoo xam dañuy dox ba si yàgg dee xam nga te da nga ciy doo ab doo ay cas social comprendre bërk démb su ma juumul ajuma mm-hmm. am na benn jeeg boo xam sama koñ da dëkk fan yëpp ñu ngi wax télé bilaa wala wa ñeenti doom la da doon xëy dañ ko sàcc ba léegi kenn ko xaw ma politicien yee ko sàcc xaw ma daal ba këy kenn gis ko barke Mohamed koo xam ne dof dara dalu ko Fatou Fall billaahi wallaahi dofut dara dalu autorité àdduna yi comme ñu nekk ci dëkk bi daal comme quinze quinze mille habitants yi sénégalais ku ci gis ku tudd Fatou Fall yaa ngi dégg am na ñeenti doom yu góor doom ñaari góor benn bu jigéen ay ay ay booy la yaa ngi dégg dafa doon liggéey amoo siis gars yi ba léegi ñu gisuñ ko ay mbokam gisuñ ko xam nga te nee nañ xam naa daal dañ ko sàcc moom sàcc la ndax ko xam feebar dara dalu ko te doful mm. fekkoon dafa dof sax ñoo xam ne dañ ko mais kon dañ ko sàcc waaw kon ku ko gis rek dafa gàtt xees ko a am yaram ni mool ku ko gis rek nga woote si géej waaye daal la dëkk bàyyi laay affaire yooyu noonu boo dikkee boo laajte ko ñu seen ko tor rek incha allahu rabi dinañ la indi quoi waaw di la sant yow tamit xam nga ndax xam li yombul quoi ndax temps dafa seer. Mhm. waa di la wax bon courage xam nga bonne longue vie quoi xam nga bon bon bonne am nga madame. déedéet waaw <laughs> bon mariage kon xam nga bon courage doom bi góor tërësu jigéen quoi vraiment ndax kenn du yow quoi di sant waa wasaare gépp waaw di wax rendez-vous daal beneen yoon incha allah. gis ngeen di wax rendez-vous di leen jox dig daje di wax ne nag wasaare la tijji nañ bunt. waaw ndax defe naa ne ñun lépp loo xamante ne day doxal làmb wala képp koo xamante ne da bokk ci làmb ak ku mënti doon bëgg nañ la dalal waxtaan ak yow ci làmb bëgg waxtaan ak yow li nga xamante ni moom nga gis làmb wala bokk li ngay dund ci làmb di leen jox dig daje ba beneen yoon mais kontaan naa ci yow de. non maa la gën a kontaan di wax gars yi xam nga 100% dof bi waa SRI yëpp di sant nag dama am ay supporters ay ay français yëpp vraiment di la wax toutes les ceci cela qu'a venu se donne c'est mon donne poignée ndax tous les jours ndax cette combat là qu'a venu c'est la donne les derrière quoi la ñoom am Kolda qu'a venu chaque jour qui donne les appels à ah, 5 tonnes qu'a paré la tubaab yëpp il faut les donne les socir quoi cette courage là ndax qu'a venu se donne jënd teel jënd kot il faut ceci ko sarante wu c'est pourquoi un seul yow 5 tonnes y a pas de kon loolu noonu tamit xam nga tellement ceci marque ba nga xam ne kon qu'a ndax qu'à venir c'est le temps y a pas de y a pas de ndax toi il faut le donne le ngeew il faut donne le il est prié demande la Dieu il est 5 tonnes qui donne ndam kon y a pas faut le yàlla le rejeter mais ceci kontaan ndax pourquoi qu'à venir c'est la donne avenir comprendre nga kon c'est la donne le avenir kon cet combat là il faut la lever c'est donne le mois c'est le reste c'est préparation c'est ñag là y a pas daal xam Ferbé ndam ndax yàppaade comme les les les deux défaites ndax comme les jeunes les je suis jeune quoi xam nga mm. comme te tuule àdduna te bugg kon seet àdduna te ndax ka venir doon les entraînements mais nag mm. il faut les louer c'est les grands leaders les géejuwaay seet doon il faut les jàppale c'est les jeunes mm-hmm. xam nga ndax c'est les jeunes boo xam ne il faut doon ndax message bu am solo laa lay lancer nii waaw xam xam nga comme c'est la c'est la doon boo xamante ni c'est la doon tous les comme les les lutteurs géejawaay comme kaa veni c'est la doon la yëkkati ay ay ndaw jóg ndax xamul tax comme comme il doon il faut doon ndax c'est la doon ele ele ele mbër mbër mu ndaw c'est dagg tànk c'est pas bon il faut les doon les poignes laissées pour yëkkati la. Mm. comprendre nga xam nga comme il faut les les grands ah il faut les comme moi il faut fi nga tolloon dama il faut la lui se donne les moytu li kii comme xam nga c'est avenir bien daal. Mm-hmm. kon c'est si constant di sant ñëpp di sant waa Séeréer daal di leen béggee bu baax a baax di sant soxna Adja. kontaan nañ ci yéen di leen jox dig daje beneen yoon ci wasaare jaa ngeen jëf kontaan naa ci yéen bu baax a baax ba beneen.